kita tamit mm, mm. gis nga bi laay jënd pour suma ñu house bi defin bi laay jënd yep bathtub bi ni laay jënd yes ñu dem won len suma supply, ay yeah you couldn't wait to go eh yalla ya so gis ngeen nak suma washing machine yi ngi nii yëpp yii laa war so yeen ciusal leen ma ban washing machine la ko wara def no lude washing machine da fana wa washing machine ak dryer la together yitam mag na so na ma cuusaar rek yes ban laa war a dee yi mooy American fridge yi su cuusal a def ci new house bi foog naa yi bii moom baax na bii am ibbi bii seet waa bii moom mhm, bii bii moom baax na moom mun naay cuus bii nii foog naa yëpp yëpp te tamit Muna na use spinning. Be muna I'm speechless. Oh, baby. It's just like between like. Yep, America. So machus be. Fangen the machus be there. Then I choose spinning. Yeah, you know, oven here. Some oven here. Be nice, no? Mm-hmm. But not be like choose. I'm gonna oven if they and our the microwave be together. Wow, so much my jelly be. bi dafa ànd ak microwave together gis nga microwave bi ngi ni microwave bi sax dafa mak Zainab jëndaaguma ngay e lifin doo def nankal gars yi ma xawma pour ma jënda de <laughs> aha Holland bi this one is white yes Ada Zainab kaya hey bul wiis foofu Zainab dara Zeynab rek xoolal black bi tamit kitchen cabinet yi ngi ni fi la choose tam kitchen cabinet yes all for my new house my new house here in the US yes dama am house in the US nga wonna len ko moy ma len yobone ke rek non waaw su ma tamay shopping ni pour pour pour pour wan len suma ma TV télé bi ci kitchen bi dafa wara am TV gis ngeen kitchen bi dafa am TV xam nga home kit bi mari bashi tamit kitchen bi cog bu bu bu bu way bu rek la la wara am in the US. We, wow. Okay. US yes. so léegi yaram ma decide daal ban laay jël nak. suma bathtub maa ñu suma shower bi sink bi ñu ni. léegi sink bi mu ngi ni. li moy nek suma sink bi is here fi mo nek suma shower bi ah no, li su maa yéene ànd ak ñu ñëw ibbi ko yes <laughs> man maa garaaw <laughs> waaye wax leen amiin rek wax leen amiin rek you never know waaw wax leen amiin rek yéen <laughs> house bi ah? in the US wax leen amiin rek ne ma def nag kitchen bu mag home cooking with Marie Bachir big one ah defaral leen it's going to nice dina nice bu defee maas yéen ñëpp ñu ñëpp ñooy ñëw private jet laay teg bu ñu ñëw na Ibi ko am dream you know where is Auntie Mariama oh, su ko defee nag aka ko am su ko defee ma teg private jet ñu ñëw nag ñu ñu maa suma fan si ñun ñëpp nag ñu ñëw na Ibi ñu house bi waaw yéen wax leen ameen rek nga yàlla léegi léegi danga wax nga wax ko loo bëgga si biir wax hi you isn't it? Sorry? It's some crazy weather out there, ain't it? Ew. Hello, mà hầm lồ à? Cái hầm này đi phải đi cả đó. Mà hầm lồ à? Đôi bisa gaming. Mana sambok kabi, sambok kabi diwa. Nata yung mga kohne ko. Eh, umiwa. Mana ko sa mahal, mahal, mahal loo. Mom, uyun. Mom, uyun. princess brought to me. you keep touching stuff. Come on, Kabi. Come on, come on, come on. What did you give me? Yeah, yeah, yeah. Manako, manako, manako. Okay. Come on, come on, come on. What did you give me? Yeah, yeah, yeah. Manako, manako, manako. Okay. Manako, yeah. Hell, mom, Lord. Hell, oh, oh, hell. I'm not looking at. Man, I gave up for God. It was the dreams when you house me. The experience. Gis na, ang to. Gis na sa. Fridge, my fridge. Na mad na after. Gis mo fridge, you mad. Sa fridge la fa order yow. baag toog bee yëpp la ak waañ bi unit bi yëpp laa oda fu mu nekk gars yi wax naa leen ne su ma paree private jet laa la ñoo tegal su ko defee ñu ñëw na ibi ko mu ngi taw xool leen weeda bi. the new house oh yes the new house is going to be like what. Christmas li mooy daxa Christmas sax. <laughs> gis na gis na li gis na yëpp gis naa ko wan naa ko waañ bi bathtub bi. wan naa ko yu nit yu nit bi. gis nga ko. yow Mariam yow yaa xam ne. yes. Oh, oh, oh, yeah. One of the kitchens had a TV. yes. really. yes. It was so cool. I really wanted that one. yeah hang nga boobu laa order di so when mommy is bored and she likes wants to watch that cooking, she can just put on the TV. TV exactly. Hang nga xam nga kii bi mar ba si kii li kitchen bu mag. yeah kitchen bu mag lañu war a watching on your phone or the iPad. exactly. You have a really big screen. Yes, big screen. You're not it, right? <laughs> That's like the best dream thing you will have. Yun gan papa gole yun sa wah mo. Buko wa denko gini. Mo understand lo ham mo wa. Ah, papa god, I'm talking no. I want this big house in America. Ah, from scratch. Build from scratch. Of uh-huh. course, my own design. Ah, waaw ma dem nag su ko defee ñu defaral ma ko mbiral ma ko nice everything ma ñëw na ah. nga taana everything moo tax ma ñëw Home Depot gars yi ñoom understand nañ xam ah, nga dem yóbbu naa leen si kër bi wan leen naka la ñu ngi koo defar soo ma ñëw Home Depot fa mel ne mooy comme suñ bi an kiw ah, soo électronique fani cooyeeg yooyu wax leen rek su ma paree nag lu yéen affaire private jet bi pour yéen yéen mii di seetaan lu leen war a indi pour <laughs> suñ ko ibbi <laughs> <laughs> incha allah. we're going to léegi baal affaire yi ñu house bi Zeynab dégg nga <laughs> ah, Mariam li tam li tam li tam métti léegi <laughs> bàyyil ñu house bi dégg after suñ suñ suñ demee suñ ñibbee ñu ñu ñu ñu soog a ñu door bu wax fi dama am ñu house de <laughs> waaye yaay bismillah asalaamaaleykum. yaa waaye su ma ji fii foo ko nga suma hello di. na gën rafet. ma si ses toonal am solo. nii nii laa laa si YouTube bi. dañoo ñëw ceeb. roof bi roof bi tam fu nekk mu dem. bi fu nekk mu dem look at Omi my baby. <laughs> Omi. xoolal fii. Eh, wam hol wang bi tonam hol wang bi. Doto yaa ngi naay so dem hol wang bi ubbi yow tamit. Na. Yow ñi dañ sen sen de. Eh. Eh, fa la ñoo waa kaay leen bi bu leen daf bu leen daf fa ngeen wax fa la ñoo dem kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen aca umi kaay. Yéen fa la ñoo dem ni. Dañ ñu dem baddi. Sweet 16. Ngeen def seen all white nii. def sen sen seg ni ah ah yen di ngeen kan, yen yen yéen macha allah ah kii mooy Oumy doomi la moy tawu Cissé hi Binta doomi Rohi Rohi waxal waxal hi mami <laughs> andel nga xam Alima Alima Fatmata macha nice suma xale american yee ni <laughs> jan sekarang kaana bee ngi jadi jan Mati Diagne bee ngi nii toppas ba Amerika waaw waaw nga am daxaar bee nii ay Cissé kaay fekk waaw waaw Marissa eh, jàng yow la ñu ni di añ añi Angleterre yow oh, demuñ de waaye ñu ngi fa añi Angleterre la Séli lii ñu ya, am anti jay suñu yaay anti jay mu ngi nii jaru ko jaru jaru dóor kaay toogee nii kaay toogee nii ceeb bu jën ceeb bu jën kenn wit Marie Bachir ba suñu biir néeg tey waaw. waa jaari kii mooy jaari waa déglu leen jaari dafa wax madame naka madame ñu ñu xool ñu xool ceen bi yaa ceen bi mu ngi nii jaari Amadou lañ fa def baba kii mooy sunu yaay anti <laughs> anti jéem mu sooroogul jaar jaari ba yërëm ma si boole. <laughs> sama baa ngi nii kii mooy Ami Collé Diaw. Ami Collé macha allah. aw moo ñaareeri moo ñetteeri moo. kay benn këram. waaw ah, na. <laughs> lii nee na waaw ñu ngi nii. mari moo jógee ba Angleterre ñëw ba suñu bo waaw ñu ngi dafa ñu fi ceeb bu amul ceeb. Ah, waaw li ma la mën a uh-huh. fi daal fi daal. nañ lépp si ceeb moo toog nii waaw ceeb bi nee na mhm. bëri na mhm. waaw ku kuy togga ceeb xaalis boobu daal woowal ma di Angleterre laajte ko <laughs> waaw nuñ koy bi tamit macha allah waaw natural natural juice man ama tolle loolu moo ko demee jox naan nga ñaari kopp nare sa jàmm neex na trop yéen da nga Friday. Friday pour la. Friday waali. déedéet Friday. ah pati bi. <laughs> non togg yéene xam nga soo toggee togg yéene dafay feeñ. waaw ba pare yéene ko nit ñi bu bëree nga jox ko nit ñu lekk ba suur. Oh. yàlla na moom xol rek lay fay. yéene bi nga si ba togg ko. Mm. yàlla na la yàlla defal lu ëpp sa kawe sa njort. amiin waay amiin amiin ah, oh. <laughs> yow yaa ngi nii noppi yaa ngi coogu rek di fomp doo ñëw wax waaye du ko def moom mu ngi mu ngi raxas rek raxas rek. lépp raxas na ko liñ doog raxas. ah waaw foog foog nga wax di nga wax moom Cissé foog nga wax moom. ah foog nga wax moom. waaye def nga lu baax la tey man lépp raxas nga ko. uyul uyul mu ne lépp raxas nga ko. uyul uyul abi koole mu ne nga ko lépp raxas nga ko. fompa di cuuraay la cuuraay la. waaw cuuraay waaw mënul cuuraay si kaani bi yow. kaani kaani bi xoolal Mati Diagne Mati Diagne Mati Diagne moo jaay Mati Diagne si la moo jaay kaani bu neex ba indi ko ba fii. ah kaani bi kaani gi dafa neex de. dafa jox cuub dafa jox ceeb bi waaw waaw am na lum laaj. Ah, am na lum laaj am na lum laaj de foofu noonu. ah kay ah, macha allah ma <laughs> jërë ngeen jëf. yàlla na yàlla fay. amiin yaa rabbi. incha allah. waaw ah, waaye alxamis la moo ñëw mu fanaan. Eh, <laughs> dégg ah ñii. man de ma Wally Seck de. oh yéen moom moo ñëw sisinam du gis ngeen yéen waa Angleterre gis ngeen. li dafa dafa siisanoon mu lewet. ay <laughs> Cissé kay nan de. xasan ah, bi dafa <laughs> laay reene la. yow YouTube la lii moo yéen ay de moo yéen a fee des de. moo yéen a fee des de. Ah, baax na yéen a fee des de. yii dañuy boo kenn soo dañu koy tolloole. xam ne ñii understand nga mooy su ma ngeen ma jox leen ko ni ko jël may daayet def rouge bi nga xamante ne lañ la jox lu dafa ànd ak heure ak axe ah, da nga koy teg si base bi mu génne <laughs> waaye boo ko bëggee wàññi naan na ngay daaye du génn non bul dégg daay man dama ëppal man damay jël liñ ma jox ma ci lenn bu ko day ëpp oui <laughs> <laughs> am na tamit déggal lu moom ne nee na rek. nekk soo ko tegee caméra duy xam li muy wax dafa nekk dafa jaale. Ah. waaw yaayooy. Ah. ah ceeb bi daal moom ëpp na macha allah lawoon ko woon rek. Badou waaw xam naa ne moom kii moom toog a kenn du ma ko wax. mbaa nee na ndox du bàyyi yoon. man waaw. maa mu nekkoon na ko ba léegi maa xam ne si moom. tooga rek lay def. waaw kon tooga loxoom saf na. ah lu ne lay def dama kontaan nag bi nga ñëwee suma biir néeg bii xarit boog di ma toggal. Mhm. ah yaay suma rakka. la woon ko woon rek di ma mhm. toggal may lekk ceeb. Mhm. ah. loolu tamit li laa la rek boo ko mën a def. waaw waaw loolu dafa seet xool. waaw bu ko nekkoon ñoo tegal ay waaw ah, bu ko nekkoon ñoo rek toggal ne alhamdulilah. waaw ñun sax moo lekkaale ba suur. ah waaw mënoon naa ñëw ne gan la xaaral ma toog waaye dafa am def daf ma xool. do you chew bi dama ko téye Ami Collé waaye lekk na de Ami Collé añ na de Ami ma ne ko nag ndugal loolu la ma du benn de ay ah, sauce. loolu bu wàcc ma ñëw ma toggal la. waaw different sauce nga firis mu ngi nii noonu la ma wax démb suma boy spécial. doomu présenté maa ko yërëm dama xam rek ne gan la danga koy teral. mu defal ma <laughs> ceeb waaw présenté ko xarit bi ndax mu xaritoo déedéet kii maa moom du xaritoo rek dañu weesi xarit fu nekk nii. ñun bi ñu oyee xarit gàmm yi ay doomu ndege ma doo ko mu nekk sama xarit rek man xarit rek baax na. waaw mun naa nekk sa mm-hmm. suma suma suma suma suma ne la daal bokk sista la waaw suma sista la waaw xam na ne moom mu am am ko di may yow ko di solo moom bu ñëwul sax bu tibbee may ma sax baax na yow boo xaytoo muy ceeb di la jox yow xay xay dafa war avantage waaye xay boo xam ne boo jus mu jël naa bu xommee jël naa man maa ngay ñibbi way xay def coalition fu mu ne nii ngeen <laughs> follow ko TikTok. doo ko romb YouTube YouTube ak YouTube. gis naa sa téléphone ñu laa YouTube bi nga dugal nga subscribe dégg nga. waaw baax na jërë ngeen def léegi tàggatoo leen ba baay. waaw jërëjëf ñu di wax xarit boobu ñu ngi nii ñu ngi ñëw Angleterre nag yéen. suñu holiday bi Angleterre. di ko di ko laaj la. incha allah waaw incha allah ñun moom ñu ngi plan pour ñëw foofu noonu ñu tax foofu ñu ñëw di. wala daal wala ñu xaar la soo plané pour dem Gambie ñun ñëpp ñu dem Gambie tase foofu noonu. waaw ngay toogal di di di di. di indi kii rek nit ñi ñëw jënd. def na dangaa jaay nag waxuma la nga mayee ko de. non dañ mayee rek dañ mayee moo fi jiyee. dañ mayee rek alina bu solo dañ mayee MBA moo fi jeex waaw suñ demee nag organise ko noonu am maanaam Cissé dañ koo dem muur Gambia. da nga war a muur waaw lifin bi catering bi yëpp dinañ la ooda yow. pour nga ñëw waaw su ñëw. mu ne yow dañ la war a dem muuri Gambia. waaw Sénégal tamit dañoo dem muur Amicoole Dakar. waaw su ñoo dem muur Amicoole Dakar yow boobu tamit ñu. oda la rek ngeen kéetal ma foofu noonu mu ñëw def. kéetal bi yëpp kaala bi ma war a muuroo moom laa oda way kaala bi ñëwagul. waaw ah. ale express la ko oda wi. ale <laughs> waaw man de moom fii laa ko doon aaree ba <laughs> bàyyi kon gars ini wala amalon tay amaloon vlog bi di leen wax ne ma ngi nii ci Cissé fi lañ ko mëna a dina leen allah rabi si beren vlog bu leen faté subscribe comment like and share ah inshallah allah ñu ngi fi live in Harrisburg macha allah comme naka lañ ko de defee rek suñ family fon table sama vlog bi Insya allah lañ ci beren video. bye.